waaw donte nag lu ma gën a loon mooy sénégalais yëpp ku ku nekk candidat nga bokk ah. mhm. waaye aw ma ci benn yaakaar. dañ ciy gis injustice jaay doole. Ousmane lu bëri lu ko dal jaay doole la donte nag quelque part aussi euh, te wax naa ko ci euh, ay ñooñam wala ñu ko ñu ma jot a déglu euh, am na instant yuy tolloon euphorie bi amoon na ba ñëpp yaakaar ne moom kenn mënu ko dina def lu mu bëgg a def. Mhm. quelquefois communication bi sooxee woon na. Mhm. parce que virulence bi mënoon na bañ demee noonu. mën na ko wàññi. virulence bi mën na mënoon a bañ demee noonu te man loolu man wax naa ko ba ma demee fekk ko Ziguinchor. wax nga ko Ousmane Sonko. wax naa ko gisee ngeen. Ousmane Sonko gisee nañu benn yoon la ñu mës a gisee mooy bi ñu bi ñu bari bi mu barricadé woo à Ziguinchor man dama paas dem dugg avion dem seeti ko Ziguinchor. nga dem ba këram. dem ba këram mu dalal ma. pendant deux heures et demie ñu waxtaan boobu réew mi moo ma ñor te boobu réew mi. amoon na fu mu tolloon. Mhm. bu ma jógee foofu dama dem seeti président de la république. Macky Sall Macky Sall gisee ngeen. gisee nañu le 6 juin. alors loolu lan nga waxtaan ak moom. Ah, situation réew mi doomu Ousmane doomu Ousmane Sonko aussi. mu ne lan. ah waaw mooy président de la république mooy président de la république dama ne ko Ousmane yaa ko njaboote. Mhm. donc quelque soit situation bu ñu koy teg nii am na loo ci mën. ma bëggoon nga woyofal situation bi mu nekkee temps yi ñu ngi barricade këram ma ne leen normalement dañ koy su fekkee ne pour ñu lever barricade bi këram président xamal ma ne bon ak virulence bi muy defee ak ni muy waxee ma ne ko mais njaboot bu nekk am na ku nekk ak nooy waxee. Mhm. sa biir njaboot sax da nga ci gis ko xaw mel noonu. Mhm. en plus c' est la politique. ma ne ko président de la République yow sa bopp au niveau de de euh, bu ngay wut. fu wax nga ne damay dem déloger dañuy déloger ji Ablaye Wade Palais. mais boobu la wax politicien na fii ci Sénégal amul benn opposant bu mën déloger président de la république. Hmm. du palais police nekk fi gendarmerie nekk fi armée nekk fi mënul nekk police ak armée suñu dépassé armée day taxaw amul kenn ku mën déloger un président de la république du palais. Hmm. amul. mais dafa mel ni kon médiation bi nga doon mu jëwul antu. soo médiation bi antuwul parce que à un moment donné am na ñoo xam ne da wax pour defar ñenn ñi di wax pour yàq. la nga defi doon pale dafa mel dafa ñu ko yàq ci suuf. ah xaw ma mais ça n'a pas abouti comme ça aboutirul nag man dama yaakaar dafa am ñu jaar ci gannaaw wax loolu mais man du wax président yaakaar naa ne loolu la bu bu ñu la wutal ay noonu. Mm-hmm. actuellement fi mbir mi toll nii Ousmane Sonko ngi euh, prison euh, ñu ngi xalaat ne lu bokk ci euh, élection présidentielle ñu dëgmal loolu noo ko gisee. Ousmane Sonko dafay bokk. dafay bokk d'une façon ou d'une autre Ousmane Sonko dafay bokk. lu Sonko c' est le plus présent aujourd'hui au Sénégal. Mm-hmm. kenn du dem ci plateau kenn laaju rek te waxuñu la waxu Ousmane Sonko. Mm-hmm. la preuve maa ngi nii tey ñëw nekk candidat wu euh, alliance. nekk candidat mm-hmm. euh, suqali suñu réew. mais presque ñu bool ñu ngi wax Ousmane Sonko boobu ba léegi. mais ci actualité bi lu bokk. mooy actualité moo tax man Ousmane Sonko il est incontournable aujourd'hui dans le landerneau politique sénégalais. amoo fooy dem di wax ci politique te duñ ci tudd Ousmane Sonko loolu la yàlla dogal nañ ko ko nangul. maintenant pour dire que dina bokk du bokk dina bokk. dina bokk d'une façon ou d'une autre. léegi bu ko yoon génnewee nag ban façon lay bokkee. bu ko yoon génnewee fekkente ne amul ndam ci cour mu jox kàddoom ñi mu àndal nee na ne leen àndal leen ak diw te Ousmane ku mu ne àndal leen ak diw koo koy faral am impact bi mu am bokkam ak àndal leen ak diw. Ousmane su ne àndal leen ak diw te kooku am jëmm boo xam ne sénégalais gis nañ ko gis na leen discours am doy leen. kooku day gañe day gañe Amadou Ba. day gañe réew day jëpp toog si bopp réew mi laa wax képp ku Ousmane ko jàppale. colonel loolu yombul Ousmane Sonko bu ne tànn leen diw diw day gañe élection. xam nga électorat. Mhm. dafa am électorat yoo xam ne bokkuñu am na électorat yoo xam ne dañoo fidélité électorat Pastef amul ci benn parti politique Ousmane Sonko du guru. Mhm. du du marabu. waaye yàlla moo ko def ci xolu nit ñi te ñi ñi ko ñi ko jox bopp xale yi la ci jeune gi la. te jeunes yi ñoom ñu sax leneen du sax Ousmane Sonko projet bi lañ lay wax la bu bi ñuy yokk Khalifa Sall ñi fa nekkoon ñëpp di jéem a arrêté yooxu yi lan lañu def gars yi faalewuñ leen xale yi faalewuñ leen dañ ne suñ suñ projet ku ko xajamal ñun dañ lay xaj duñ duñ la sax déglu te Ousmane Sonko tey tey tey su leen waxoon ne def leen topp leen diw par exemple ma wax ma raisonné par l'absurde su Ousmane jógoon Sonko jógoon neneen dem leen ngeen votel Amadou Ba dañ naan duñ ko def parce que du loolu nga ñu waxoon anti système nga ñu waxoon donc euh, loolu moo moo am de son électorat la ku mu ne dem leen foofu ñooñu foofu la ñuy voté ji. électorat bi am na am dina bokk A dina bokk bokk mais. di du yebal kenn mais mun na mun na dem ba ci biir mu xool ku ko doy mu ne kii moom ma doy euh, pour pour pour euh, pour mën a mën a parce que ñoo bokk xalaat mun na nekk de son parti comme mun na nekk keneen. ok tey jii bu bu am na ñeneen ñoo xamante ne euh, lay jàkkaarloo muy waa jamono ji Amadou Ba mooy seen mbër su ma la déggee ni nga waxee Amadou Ba amul chance ci élection présidentielle pour gagner ko. Amadou Ba bi la bi laa la war défendre. Mhm. parce que dafa jóge ci moom ma doon premier ministre président bi waroon dem élection demul élection donc fu mu nekk nii bilan président Macky Sall Amadou Ba moo koy porté. Mhm. te bilan boobu sénégalais ni ne woon nañ ko ginnaaw. d'accord ñu ci nee nañu dox nee nañu doxul moom ci moom nee na moom continuité lay def sénégalais nee na rupture lañ soxla. Mhm. moom mu ne continuité lay def. Mhm. la majorité des sénégalais ne rupture mu ne moom continuité day daanu. du dem ok yow nga nekkoon ci l'armée bi ma ma di la interpeller ci euh, ministre de l'intérieur Antoine euh, Diome bien vrai que dépendre woon foofu euh, manifestation yi ni ñu koy aayee léegi daanaka kenn mënatul manifester fii ci Ndakaaru événement yi fi amoon répression yi bavure policière yi ñuy gis ak yu bëree bëri yoo xamante ne am na nit ñàkk seen bakken ba léegi amul enquête boo xamante ne def nañ ko ci ba mu aboutir ñu identifier ñi nga xamante ne ñoom la seen loxo laale ban lecture nga ñuy defal ci loolu. suñu constitution moo ñu may ñu manifester. manifestation régime déclaratif la nekk da ngay dem rek ne manifeste damay manifester autorité administrative yi nag ñoom ñooy évaluer ba xam ne ndax war nga mën a manifester wala mën a lu ko def ñoo def waaye lu ñu ci gis mooy tant que ñu manifestation problème du am chaque fois ñu tere manifestation li ñuy déployé ci force de l'ordre suñ ko fekkoon dañ koy def dañ koy déployé pour ñu encadrer manifestation yi man problème du am mm-hmm. dañ koy tere sa gars yi suñu jógee jàmmaarloog mu ngi jàmmaarloog policiers yi politiciens yi ak gendarme yi su doon seen sago dañuy encadrer manifestation mu jeex ku nekk dem. mais duñ fa nekk di jàmmaarloog ñoom. lan lan lan moo waraloon pour yow tendance boobu ñoom di arrêté aaye manifester jamono ji. mais décision politique la et c' est de bonne guerre. c' est de bonne guerre c' à dire. décision politique la te du décision politique. Mm-hmm. malheureusement Sénégal dañoo dem ba nga xam ne parce que les administratifs dañoo dem dañu nekk ay politiciens. waa administration te waruñu am na ñu nekk si administration bi ñoo xam ne dañu nekk ay politiciens. Mhm. suñu nekkuloon politiciens te day njaaxaanay mais dañuy dañuy euh, évaluer mhm. la demande de manifestation à leur âme et conscience. Mhm. ñu jël décision boo xam ne moo gën a dëppoo ak yoon. mais suñu demee ba nga xam ne da ngay da ngay tere pour tere rek te xoolal même motif yi jël même motif rek dañuy jël copier coller changer date yi trouble à public. dañuy jël entrave à la libre circulation entrave à la libre circulation. trouble à l'ordre public. ba ñu def ko am ku demande ñu demande euh, def benn manifestation dans un stade ko ban ban entrave moo fa am dans un stade. Mhm. mais nañ ko encadré ku nekk par li ngay pare nga dem sa mhm. loolu mooy loolu mooy li jaadu. da nga bokk si ñu bëgg ñu am benn autorité indépendante pour mu organiser élection yi. loolu yàgg nañ ko wax c'est les assises nationales ah. Mhm. donte militaire laa ma damay liir damay liir. assise nationale moo ko bëggoon te d'accord naa ci ak assise nationale lépp la assise nationale waxoon tey muy président Macky ak ñeneen ak ñeneen ñëpp ci d'accord même su fekkee ne président nee na moom dafa défendre ay réserve mhm. mais assise nationale les conclusions des assises ñëpp ci d'accord woon donc kon conclusion yooyu la ñu waroon tëral ñu waroon tëral. Mhm. ñu wut autorité bu indépendante. bokk si assise nationale mu mën organiser élection yi. loolu nañ fi mën a indi général comme ni ko Abdou defee woon. mën nañ fi indi général mën nañ fi indi keneen ku dul général. Mhm. waaw. pour mu organiser élection yi parce que mais Antoine Diome nag wóoluwoo leen ko. Antoine Diome c'est un politique. Euh, moom politicien la. Hmm. te gars yi ñu ngi wax ne politiciens yi da d'accord ci man man man maa ngi door a dugg ci ci domaine lii. Mhm. mais li mu mën a wax daal mooy li assise nationale waxoon moom la ñu waroon def parce que looloo ëpp équité moo ëpp transparence mhm. c'est pas pour rien à un moment donné président Wade créé fii un ministère des chargé en charge des que ce soit un général que ce soit un civil mu organiser élection yi parce que du seulement les généraux ñoo ko mën def ok dañuy delluwaat ci parti boobu nga xamante ne mooy te ñu tas ko mooy Pastef tas gi dem ba ñuy mille 2023 ñi tas parti politique ak motif yi ñu avancé pour tas ko d'accord nga ci Pastef tasagul